xam tu daani daani daani daani shawqun minka masdaruhu unqu fa labbayka ya xidni ولبيك يا شوق دعاني شوق منك مصدره عمق فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق لقد لمست أذني قصيدة شاعر تناهى بها ذوق بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala yi bàyyi xel ci Sud seen rajo asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bi ñu santee borom bi subhaanahu wa taala julli di sëlmal ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi amaan ci dellu siwaat ak yéen ci seen jotaay bii di xamtu di leen nuyu yéen ñu ñuy bàyyi xel ci biir réew mi di leen nuyu yéen ñi ñuy bàyyi xel bitim réew di leen jaajëfal bu baax te di leen bége di bég lool ci topp gi di bég lool ci safoo gi ak faale gi di bég ci ñaan yi ak gunge gi di leen ñaanal waaye delluwaat di sàkkuwaat ci yéen ay ñaan ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu defal tawfiq defal ñu sutura su ànd ndam waaye nangul ñu jaamu yàlla yépp mbokk yi bàyyi xel ci defem seen rajo asalaamaaleykum ñaan borom bi mu nangul ñu suñu julli juma ñaan ko mu nangul ñu suñuy sarax nangul ñu suñuy istixfaar nangul ñu suñuy salaatu ala nabi santaat ko bu baax xewal gi nga xam ne moom la ñu defal bañ waat fukki fan yi nga xam ne fukki fan yi barke la ak tawféex ak teraanga di fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu nangul ñu jaamu yàlla yi mbokk yi ñoo ngi dëgmal bis yu màgg yi nekk suñ kanam di bis yi nga xam ne moo jiitu ci biss yi nga xamante ne bis la yu ne ci biir fukk yi waaye di bisi xéewal ki teraanga ñaari xaaji nit ñoo ci bokk ay atte yoo xamante ne bokkuñu nuñ ko bokkee jamono jii ña nekk ca aj ga nga xamante ne ña ngay jooxe ji seen ay ponki aj ñoom ña ngay tàmbalee jëm ca yëf ya euh, ña nga ca mun na tey fa lañ yendu euh, bu ñu fa jógee ci kanam tuuti wala sax xam naa ña ngay waaj daal di war a dem nga xamante ne mooy arafa euh, war faa yendu ji bu subaak jàmm ñooñu seen wàlla ngi noonu ñu tàmbalee dugg na ki liggéey bu mag ba nga xam ne moo leen di xaar te mooy aj màkka jamono jii 19 heures jot na fële ca Arabie Saoudi ba teg juróomi minute ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ndokkeel di leen jaajëfal bu baax a baax ñaan borom bi mu nangul leen seen aj waaye nangul leen seen ñaan arafaa ngi noonu bu ngeen àggee bu leen ñu fàtte ci ñaan yonent salaa sallam nee na ku fay yendu suñ borom jéggal la sa bakkaar yépp te koo ne yàlla jéggal ko mu jéggal ko yal ñu yàlla boole jéggal def jàmm ci réew mi def ko ci réew yu ko wër wàcceel ñu ndoxum jàmm ndax suñ mbokk yi ci àll bi soxla nañ ko jamono ji ñi ngi ji seen gerte seeni dugub waaye taw xaw naa sore saa yu ko neexee nañ ko tuubal te jéggulu ko ñaan ko mu wàcceel ñu ko fa qultu staxfiru rabbakum innahu kaana xafaara yursili sama alaykum midraara wa yumdidkum bi amwaalin wa baniin wa yajcal lakum jannatin wa yajcal lakum anhaara yal nañu ko yàlla boole defal ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax tey bégge mboolem ñiy topp xamtu moo xam ñu koy topp ci biir réew mi la wala ñu koy topp bitim réew yéen ñëpp asalaamualeykum jaajëfal leen bu baax a baax ndokkeel leen bis boobee di subaak jàmm bu fekkente ne yow mi nga xam ne bokkoo ca ña aji nga nekk ci réew mi boo ko mënee eh, woor ko ci sunna yi la bokk te itam bari na aw yiwu ci nekk lool sunna la bari na aw yiwu ci nekk lool ci képp koo xam ne mën na ko soxna si daan ma waaw su fekkee ko amoon bori la ci koor gi nag ma ne ko mën naa woor arafa ji te bu jàllee mu tàmbalee fay bori kooram am boru koor du tee koor kooru naafi la waaye li gën nag mooy fay sa bori yi boole ko ak moom ñoo ngi leen di jaajëfal ndokkeel leen bu baax bégge leen ñaanal leen ñaan borom bi subhaanahu wa mu boole ñu nangul waajal li nga xamante ne nii nag mooy tabaski gi te mooy li nga xam ne moo ci topp te ñeel ñun moo tax sama laaju xamtu tey mooy danga may wax xar mi nga xam ne moom lañu war a tabaskee ñaata at la xar mi war a am ak nan la war a mel xar mi nga xam ne moom la ñu war a tabaskiyee xar mi ñaata at la war a am wala ñaata weer ak xar mi nan la war a mel beneen laaj bi ci topp nga wax ma nan la ñuy jullee jullik tabaski nan la ñuy jullee jullik tabaski ñaari laaj yooyu laa bëgg nga ñëwal ma ci ci 88 628 98 98 33 841 22. ngeen jëf 88 628 98 98 33 841 22 33. وسر يا قلب في درب المعاني وحلق في الفداء كما الطيور إلى تلك الربا يا نفس سيري وحث الخط عن دنيا القشور وسر يا قلب في درب المعاني وحلق في الفضاء كما الطيور ولا تأسف على نكران صاحب ولا تألم من الصمت المرير ولا تأسف على نكران صاحب ولا تألم من الصمت المرير لكم سافرت في الدنيا وحيدا غريبا في الحياة بلا سمير لكم سافرت في الدنيا وحيدا قريبا في الحياة بلا سمير وكم غنيت في أيكي بلحن وغنى السرب باللحن الشهير وكم عانيت من ظلم انتقاد على غرض ومن بعض الفتور وكم غنيت في أيكي بلحن وغنى السرب باللحن الشهير شهيري وكم عانيت من ظلم انتقاد على غرض ومن بعض الفتور فمابعة المبادئ للتباهي وما سمت الكرامة بالظهور وما يوما سعيت لغير حق ولا يوما كللت من المسير فما فما بعت المبادئ للتباهي وما سمت dafa bëgg a bokk asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah alaaji Mbacke Sylla ngi lay nuyu di la siyaar di la ñaanal ko yàlla yàlla nañ ko yàlla boole waaw xam nga tey moom gaa yi daa mel ne daa mel ne gaa yi dañoo ne ci wutum xar yi allo <laughs> allo loolu lay nuru euh, bis baa xat ci ñoom jombut euh, waxtu ya déglu ngay gën a man ndax euh, bu dee commerçant la ma nga ca yitte ya loolu comprender nañ ko noonu waaye maa ngi leen di wétali nañ dem ak ahsanul anasit gaa yi bàkk yu neex yi ñu ànd wétali ñu naqashtu min al-huruf ala كما الثوب المطرز بالحرير وألبست الغرام عفاف قلب تفانى في الرفيق من الشعور وألبست الغرام عفاف قلب تفانى في الرفيق من الشعور تركرق بالوداد ففاض نهرا وغرد للوصال كما الطيور الدهور ترى كرق بالوداد ففاض نهرا وغرد للوصال كما الطيور بشعر ظل ظاهره التزاما وباطنه الرحيق من العبير وكم غنيت للأوطان شعاري فكان القلب للعشق الأثير بشعر ظل ظاهره التزاما وباطنه الرحيق من العبير وكم غنيت للأوطان شعاري فكان القلب للعشق الأثير وهبت لها المشاعر والحنايا وصنت لها الكرامة الرحمة في الضمير فلسطين التي في القلب قلب وفي عين الهوان بلا ثغور وهبت لها المشاعر والحنايا وصنت لها الكرامة في الضمير فلسطين التي في القلب قلب وفي عين الهوان بلا ثغور بلا سعوني 88 628 98 98 33 841 22 33 فكنت وقد رجوت لها فداء كساقي الأرض في اليوم المطير تقاسمها القرود وظلم أهل وكل الظلم في تلك القصور فكنت وقد رجوت لها فداء كساقي الأرض في اليوم المطير وكنت إذا كتبت لها قريضا تجاهله الكبير مع صغيري وكنت إذا كتبت لها قريضا تجاهله الكبير مع صغيري فهل قد ظنتي الدنيا بقوم يرون النصر في صخب الزئير الخير فهل قد ظنت الدنيا بقوم يرون النصر في صخب الزئير وهل جفت بحور الشعر حتى يكاد الشعر لا يروي غديري وهل جفت بحور الشعر حتى يكاد الشعر لا يروي غديري إليك بكل عزم عزم الكون آسعا وفي كل الحنين إلى النفير إليك بكل عزم الكون آسعا وفي كل الحنين إلى النفير لعلي أفتدي بالروح أهلا بحد السيف والقلم الجسور فإني شاعر القدس المعنى وإني شاعر الأقصى الأسير لعلي أفتدي بالروح أهلا بحاج السيف والقلم الجسور فإني شاعر القدس المعنى وإني شاعر الأقصى الأسير فإني شاعر القدس المعنى وإني فإني شاعر الأقصى الأسير فإني شاعر القدس المعنى وإني شاعر الأقصى الأسير فإني شاعر القدس المعنى وإني شاعر الأقصى الأسير فإني شاعر القدس المعنى وإني شاعر الأقصى الأسير فإني شاعر القدس المعنى waa groupe Jotulé ngi noonu di doomi réew mi ñoom itam ñu indi seeni barkeelu ci seeni bàkk ñoom it ñu ànd déglu leen jëf jëf ja bari loo bari loo fay moom mu ja sellu loo moom mu néew leloo di dëggi jëf waaw jëf ja baari loo mu baari xale yaa ngi noonu di woy nee nañ nit gi jëf jëf ja bari lool ëllëg ñu fay ko fay ga néew lool ndekete booba jëf ja sellu loon ñoom ci suñu làkk lañ koy wax ñu dégluwaat leen tax nga weddi woon di la jay yow nga bay yoon di bàkku man aw ma moroom fàttee ne buur moo la def nga woon ñi dëggi waaw jëf ja baari mu baari lool dem ñu fay ko moom mu néew le mu néew le lool ñi keete moom jëf ja mi ya tax mu néew le jëf lum bari yéene jalañ ca ca bur nga xeebuloo de bett la yow nga weereloo ba mel ba xat yow nga jaxleloo dangi jëf jëf ja bari loo dañ la digaloo jàngoo ko xam tax nga wàccu yoon te yaa ngi jooy reccu wes na doo fi doo fi am tey wenn ko dem ca buur bi moom sa teere jëf yow nga xeb ko doon bu reccu naan suuma yëgoon na yokku mbaax loolu mooy li woon raa ngi jëf jëf jëf ja baari lool mu baari mu néew lee lool jërëjëf waa jot li nga wax ma rek euh, xar mi nga xam ne moom lañu ñu war a tabaskee xar moomu nan la war a mel ñaareelu laaj bi mooy bis bi nga wala bokk julli it gi nan lañ ko war a jullee ñaari laaj yooyu la mbokk mi nee na ñu fàttali ko ci 88 628 98 98 33 841 22 33 foofu ngeen di jaare ngir ànd ak ñun ci jotaay bi ñu ànd diglu xale yi ci jirim ndax dama di xale te teel a ñàkk yaay. bii daw na yaram lool. góor bu dooleem tollul ci yor ma. ma tëdd ba guddi di janeer sama yaay waa ma ee yow mama kaay nàmp ta dellu ma koy yootu jotuma ko muy géeju rangoon ci sama xol may fóot may paase may bale may raxas may togg ay bii coono. xaw ma kañ lay jeex. 88 628 98 98 33 841 22 33 Massa. muñal muñal jirim gul jooy soo jooyee sama toog man ba jig njolloor sama xel dem ci sama yaay booy samay rongoñ di tuuru ndax jirim la man de aw ma yaay si rafle baay muñal muñal jirim bul jooy soo jooyee sama xol lay fees ki dafa màgg ci wetu yaayam man maa teel a ñàkk sama mbokk mi dafa bëgg a bokk asalaamualeykum allo salaamualeykum ñoo ngi koy jégalu xam naa foofu daa xaw a am tuuti ay benke ñenke di xaaraat keneen ci ginnaawam ci 88 628 98 98 ñu déglu ahsanul anasid ñoom it te dellu si waat ci gaa yi fu ñu tolloon ñoom تلقاهم سكينة وإقراب عبيد خطاياهم إلى الرحمن يباقون عليهم حين تلقاهم سكينات وإطراق يضجون إلى الله ودم mbokk mi daa bëgg a bokk ah, loolu kiimaan la kat Alioune Badara foofu jar naa xool lu fa nekk daa mel ne serveur ba jàppandiwul lool ñoo ngi leen ciy jégguloo ودمع العين مهراق عبيد من خطاياهم إلى الرحمن أباق أفاه إلى الرحمن أباه أفاه ñu déglu sponsor bi te dellu si waat dafa bëgg a bokk asalaamaaleykum waaleykum salaam bismillah Oustaz Mbacké Sylla ma Penda Seck la waaw kay Seck na ngeen def maa ngi lay maa yàgg si ligne bi nag. waaw ñu ngi koy jégalu tey ni serveur bi bindoo woon moo tax. ah. macha allah ah, a baax. jërëjëf Seck jërëjëf. di leen jaajëfal si. Ah. tënk bi njub. jërëjëf. di ñaan yàlla ci yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. ñu ne li ñu teewlu si tënk si war moom mooy xar bi daal amee juróom-benn weer ak lu tegal daal. waaw. waaw loolu lañ si teewlu woon. Mhm. waaw tënk juróom-ñaar rakk la bu njëkk bi deuxième kàbbar bi. waaw. deuxième deuxième kàbbar bi juróom-benn rakk la. Mhm. waaw loolu laa teewlu woon daal. d' accord loolu am na solo. ñu leen ñu leen di jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. di nuyu waa Kër Masar yëpp ak li ko wër. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf Oustaz allah jërëjëf bëgg nañ lool ci dugub bi. مع الثمين بلا ثمن وفهناك بلا وطن باع الثمين بلا ثمن وفهناك بلا وطن حتى الدموع من الأسى فوق الخدود بلا سكن فوق الخدود بلا سكن قد كان يملك فرهه واليوم يملكه الشجن خرق العدو شراعه وبكفه انقطع الرسن وبكفه انقطع الرسن يا طعنة الإجرام من أخفاك عن عينيه من mbokk mi daa bëgg a bokk aca ñu jégglu ko baax xaaraat ko ci yoon wi أخفاك عن عينيه من أغرت أبواب الهوى mbokk mi daa bëgg a bokk wasabatu alwaanul fitan asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bis. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Oustaz Mbacke Sylla. jàmm rek kay. maam Baba Diaw Kaolack. imaam na ngeen def Kaolack naka waa bàyyi nañ ci jàmm. ñëpp a ngi ci jàmm alhamdulilah. macha allah naka imaam yi ba ñoom ñi ngi waajal. waaw ñu ngi góorgóorlu bu <laughs> allah. <laughs> alhamdulilah. tubaarkàlla. jaajëf waay daa am soxna su ne ma de seen imaamu koñ da ko wax ne ko bu imaam rëyut xar. Ah? waa koñ bi daa am soxna soo xam ne ne seen imaam yi da koo wax ne ko. Ah. bu imaam rëyut xar daal waa koñ bi yëpp amuñu tabaski. léegi nag waa ah. koñ a cotiser imaamum xar loolu de baax na. ah baax na kay loolu kay sunna su rafet la waaw <laughs> ah, loolu moom imaam amul ko wax kon di jëndal ko xar. ah, ah loolu koy wax dëgg yàlla moom sagal nañ seen imaam sagal nañ islam. macha allah bisimilah. waaw waaw. <laughs> jërëjëf. mais imaam damaa bëggoon nga wax ma xar moom mu ñu war a tabaskee nan la war a mel. ma ne xar mi ñu war a tabaskee nan la war a mel. waaw xar mi daal bëgg nañ ci xar moo xam ne dugg na ci at juróom-ñetti weer daal ba ba at. Mhm, juróom-ñetti weer jàpp at. d'accord loolu sopp sopp nañ ko ci. loolooy melokaan wi. moo melokaan bi mu weex lañ ci taamu. mu weex. waaw mu bañ a manqué wala am na cër yoo xam ne mën na koo manqué du dee ñu mën koo jullee. bu bu manqué moom manqué daal moom bu mu patt bu geen bi gàtt. bu mu patt bu geen bi gàtt. waaw d'accord ah kon kay tubarkàlla. Hmm. jërëjëf beneen bi ci topp mooy julli iit gi moom eh, ñi nga xam ne dañuy julli ji nan lañ ko war a defee ndax léeg-léeg ñu raw ci nit ab rakka mu war koo indiwaat wala demee noonu moo tax xam niñ koy defee baax na. waaw déedéet niñ ko defee eh, julli julli moom amul huit heures rek mooy benn rakka. waaw bu dul huit heures moom bu dul huit heures bu manqué da ngaa war a fay benn rakka bi nga manqué. déedéet dama ne. waaw li tax ma laaj ña la nga wax ñu nan lañ ko war a defee. maanaam man su ma xëyoon ñëw ci jàkk ji julli si fekk yow ngay jiite nga rawee ma benn rakka ma war a indi bi ci des. waaw bu ma xamul woon nan lañ ko war a defee day xaw a compliqué ci man. bismillah imaam. imaam Diaw dem na ñu ngi koy nuyu di nuyu waa kawlax yëpp di ko xaaraat bu ñëwee tontu ci laaj yooyu maa ngi koy jégalu bu baax di nuyu aaju Pam Mor Diaw ma ca Japon tey ànd ak ñun jotaay bi. wasummu yasbaxu fi laban imaam jërëjëf mbokk mi daa bëgg bokk salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah bisimilah. waaw lu ñëw baax na sama sëriñ maa ngi alhamdulilah Serigne Mbacke li liñ koy wax. Serigne Mbacke Fadio Mali. waaw kay sëñ Jama na nga def. ñu ngi sant bu baax li alhamdulilah li li jàmm rek kay. alhamdulilah dañoo bëggoon yow ci tontu léegi rek. ayca xar mi ñu war a tabaskiyee nan la war a mel. waaw xar mi daa war a doon lu ñëw baax na lu ñëw baax na. muy mhm. ma eh, maanaam xar mi daa war a doon xar moo xam dana am juróom-ñetti ñett weer jàpp at. Mhm. waaw. te wërta am maanaam ay laago nopp dagg wala béjjin bu damm te wéragut. Mhm. waaw. bu ko defee nag ñu ñëw ci rakkaay nga xam ma war a nekk ci gi nan la waaw maanaam kàbbar bu njëkk bi juróom ñaari kàbbar lay doon waaw waaw boobu ñaareel bi juróom lay doon boole koog bi ngay jóge taxaw waaw waaw loolu daal lañ ko jàngiwoon yaa gar jërëjëf tubarkàlla jërëjëf waaw ñuy jaar baax na ñu leen di teewlu chaque jour yaa ci oustaz Alioune Mbaye ak oustaz Alioune Sall chaque jour jërëjëf jërëjëf duñu woote waaye duñu wuute jëf kontaan nañ Euh, suñu mbàkk si la sama mbokkum daara njaareem la daara si Noor Mbaye si ah, ah foofu nga jàngee tubarkalla tubarkalla ñu ngi siyaar bu baax baax baax jërëjëf maa ngi nuyu waa daara ji yëpp <laughs> ñëpp waaw ñu ngi fii nag Touba Centenaire ah koy ndeysaan jërëjëf jërëjëf si la jërëjëf jërëjëf sëñ Mbàkke ñu ngi lay nuyu di la béggee tubarkalla di bég ci dugam bu am solo boobu yabki wa ma yujdi al buka awwahuma aqsal wahan hmm. labanan saqa ahbaabahu asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ Mbacke waaw yaaram. alhamdulilah Ndongali Sarr la Caaroy Géej. Ndongali na moon nañ la naka waa Caaroy Géej. waaw maa ne raw fan yi ci loo nekkoon ba ma gëj laa dégg. waaw xanaa <laughs> nekk ci daara ji rek. nekk ci daara di lijjanti daal. waaw nekk ci daara ji rek. ñu ngi jaar waa di jéglu baax jërëjëf jéggal nañ la. loolu jërëjëf incha allah. alhamdulilah ñu ngi lay ziar baax. jërëjëf di rek incha jërëjëf jërëjëf. Ah, euh, ñu ngi sant bu baax dafa mel ne dañoo waroon a waxtaan daal euh, xar mi nga xam ne moom la ñu war a tabaskee nan la war a mel. waaw xar mi de moom comme ni ñu ko waxee rek. Mhm. waa warta soox soox bu metti mhm. warta patt hmm? patt waaw waaw waaw waaw genn warta gàtt mhm. nga xam ne tey boo ko doon xaaj ñaari xaaj ñetti xaaj ñetti xaaj. Mm-hmm. boo ko doon xaaj ñetti xaaj. Mm-hmm. ñaari xaaj ba day dem loolu bëgguñu ko. Mm-hmm. ba ci béjjén bi it bu doon damm it dañuy bëgg buy damm bu doon ko doon xaaj ñetti xaaj. ñaari xaaj ya bu mu dem. yooyu daal lañ ci taamu te comme ni ko mbokk mi mujjee duggee sàng donte moo am baax na waaye boo boo amee bu weex. taamu nan ko ci ak yi bu dee ci at yi tamit taamu nañ ci mu dugg juróom-ñetti weer jëm at. Mm-hmm. waaw waaw waaw. d'accord. allo. waaw maa ngi lay dégg léegi mu des nag mu des nag julli gi julli gi ci boppam nan lañ ko war a jullee. waaw julli gi de comme amul naafila boo ñëwee. Mm-hmm. dañoo sopp rek boo ñëwee nga toog tàmbalee wax allahu akbar kabira. Mm-hmm. walhamdulilahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. ba keroog imaam ñëw imaam it bu ñëwee. sopp ñu mu daawul fa ñaar raaka daa war a ñëw rek tàmbali dem mhm. léegi bu ñëwee dañoo bëgg mu kàbbar juróom-ñaari kàbbar mhm. juróom-ñaari kàbbar yi arma bi da ciy bokk mhm. waaw léegi ñaareelu ñaari rakka bi day doon juróomi kàbbar ak ka muy muy juróom benni kàbbar waaw loolu daal lañ ci kii d'accord waaw incha allah jërëjëf jërëjëf yaaram kontaan nañu waaw xam naa ma allo waaw di profito di di sant ñi nga xam ne dañ ma sopp ngir jëmmi alxuraan. Mm-hmm. te gannaaw yàlla sunu xamante mi ngi aju ci émission bi. Mm-hmm. di ci njëkk ku mel ni sëriñ Xaadim Sall ci Thiaré Samsam. Mm-hmm. ku mel ni sëriñ Ida Diop fii ci Thiaré Géej ko sax xamoon nañ ma avant euh, bokk na ci ñi ma jox seen ak njaboot ñoom Pape Diop. maanaam ku mel ni Xaadim Sall moomu euh, dafa def lu rafet te gannaaw yàlla émission bi la xamante. day yëngu ci wàllu ñaw mais dafa dox dawal ak daamaram ba ba ci daara ji mhm. daan ne ma waxuma la yow mais say soxna sax lu ñaw lu sol bëgg naa ko bëgg naa ko ñaw ngir jëme alxuraan waaw di ci gërëm it ku mel ni Serigne Issa Diakhaté kooku moom yàgg nañu te lépp lu ma sol moo sax ñëwal ngir jëme alxuraan jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatulah di gërëm ñëpp rek. waaleykum salaam jërëjëf kon nag loolu maanaam boo gisoo occasion bi ne dama koy jàllale. baax na am na solo sëñ bi. am na solo di gërëm yéen ak yow jërëjëf. jërëjëf am na solo am na solo lool ñu ngi la ciy jaajëfal baax di leen jaajëfal yàlla nañu ko gën a man di jégalu bu baax a baax. 88 628 98 98 33 841 22 33 Aïcha. يبكي وما يجدي البكاء أواهما أقسى الوهن ما حيلتي في من يرى أن القبيح هو الحسن ما حيلتي في من يرى أن القبيح هو الحسن كف المخادع خلفه لم يدري عن يده إذا لم يدري عن يده إذا يتخافتون وما دار أن الزمان له أذن كل الذي يخفونه يوم سيخرج للعلن yataxaafatuuna wa ma daraw ana ana zamaana lahu uzun 88 628 98 98 33 841 22 33 kullu lladi yaxfuunahu yowman sa yuxriju lil alan ndeysaan nee na daal euh, moom waaru na lool tiit na ndax jamono ji daa mel ni léppay wax waaye bis dana ñëw kenn ku nekk la nga doon nëbbu ñu génnee ko ca mbooloo ma allahu akbar eh, seet yow ma sara sarair lay junju noonu ñoo ngi leen di bëggee baax di bëgg suñ mbokki téyeer yëpp rawat na ñi ngi bàyyi xel foofee ca marché Ndumbe Diop ñoo ngi leen di nuyu galas maa ngi leen nuyu nuyul ma Abdou Seck nee ko fu sama eh, ñaw bi toll maa ngi koy nuyu moog waa daara ji yëpp te di leen béggee sama gars yi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu yàlla na yàlla defal leen tawféex ay ca kullu alladhi yukhfunahu yawma shuruju lil alan sharrul mahanati rak'atun bayna al jumu'i ila wathan شر المهانة ركعة بين الجموع إلى وثن من ذا سيدرك صاحبي إن كان بالمكر ائتمن من ذا سيدرك صاحبي إن كان بالمكر ائتمن man daa sayudriku saaxibi man daa sayudriku saaxibi in kaana bil makri taman in kaana bil makri taman makri taman macha allah loolu baax na ñu daal dem na kon jëli ban bakkati diyaaru bakkati diyaaru wa xaaratil aadaaqu wal qudusu abkaaha wal wanifaaxu dëkk yaa jooy ña jooy ña gent put ngay jooy ndax nañ ko wane ginnaaw sàggane ko wal wanifaahu ñu jéggulu kooku doon yër lu di ko xaar moom itam mu ñëw dese nañ tuuti ci ay minit bakkati diyaaru asalaamaaleykum alo salaamaaleykum ñu dem masra nabi gada yuarriqu muqlati bakat ad-diyar wa tahuzzu qalbi nahwahu al-ashwaq bakat ad-diyar masra nabi gada salim أصحابك أنهم أبواق بكت الديار بكت الديار وغارت الأحداق بكت الديار والقدس أبكاها هوى ونفاق بكت الديار هي والقدس أبكاها هوى ونفاق بكت الديار يا قدس لا تبكي فديتك إنني إنني لرياضك غناء كم أشتاق yaa xudsu laa tabki fadaytuki innani li riyaadika alqinaacu kam ashtaaqu 88 628 98 98 33 841 22 33 yaa xudsu laa tabki yaa xudsu kallaa lan tacuudu xurratan xataa yutalli qawmiya al isfaaqu yaa xudsu kallaa lan tacuudu bokk asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah waaw yaaram. alhamdulilah. su dee Massamb la. def Diourbel Maas sama Maas. Ah, foo nekk léegi. <laughs> maa ngi sama atelier. ah d'accord fan Diourbel ah. Kër Kër Massar. ah, ah? maa ngi lay nuyu baax di la di la dàkkantale na ma daan dàkkantale. waaw comme d'habitude. <laughs> waaw waaye tey du ci àgg. <laughs> <laughs> mais dama laa namm lool yàlla xam yàlla xam na ko fii la ëppee na ngeen def ak ñaw yi waaw ah, sànq dama lay teewlu nii sama xel nekk ci yow ndeysaan wala ndeysaan loolu yàgg ne ah, yow sama kóolare gu yàgg nga yow waaw waaw loolu dafa yàgg macha allah macha allah yaa ngi jàmm bu baax ba jërëjëf jërëjëf alhamdulilah ñu ngi rafetlu émission bi. macha allah jërëjëf. vraiment di yàlla yàggal sa taxawaay. alhamdulilah yokk xam-xam bi. defal la jàmm amin yaa rabbal alamin amin barke borom Tuuba amin amin amin waaw vraiment jërëjëf jërëjëf Samb nuyul ma waajur wel booleen leen déggee. <laughs> amul benn problème. macha allah tant maa ngi dégg ngay tudd Massa li nga jóg. waaw xam naa sa xel nekk fa. waaw gis na <laughs> jërëjëf. <laughs> baax na taw feex rek. jërëjëf kontaan nañu lool macha allah. jërëjëf xayran maas ñu ngi lay nuyu baax a baax te di la bëggee 88 628 98 98 kooku kóolare gu yàgg la daani looloo ko yëngal muy fàttaliku démb ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax àdduna lu yéeme la sëñ maas xam nga li may wax maa ngi lay nuyu bu baax a baax sama bayni wa ma baynahu farqu uani kama ana min al-bu'di wan-nawa asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Mayoro waaw. ah da ma da nga ma da nga maa raar fan yii de. Eh, <laughs> raaruma la de bu <laughs> da ngaa raar xaw ma ci yow dara. démb kay démb rek maa ngi ma bëri ci dem maa ngi lay maa wax ak yow benn waaye xam naa jotoo ko woon koo déglu man de loolu moom xam naa maa ngi la ciy jégalu di jégalu waale ñu ñu bëree bëree bëri waaw waaw nee nag maa yëpp nag kenn mënu koo liir waaw loolu rek loolu rek la waaye man noonu la ñuy dalee maa ngi ciy jégalu ñu fi mu ne maa ngi ci trois cent ma jullee ci baar dëgg la yow da ngaa baax nangam nangam rek da ngaa ngi nii a liir incha allah ñu ngi bu baax nag. jërëjëf jërëjëf. waaw naa ne a wàccee jotaay bi sax waaye suñu sañoon moom rek di ñuy loolu de am na waaye xibaar yéen wéttal la. ah <laughs> ma ne xibaar yéen wéttal lay doon. waaw ah, ah, xabaar yi wéttal la waaye moom daal tubarkal la ni daal ndongo gi daal moom tubarkal. jërëjëf jërëjëf tubarkal la. maa ngi lay ziar bu baax a baax baax. jërëjëf jërëjëf di yàlla di ñaan sa jàmm yàlla na yàgg waay. amiin amiin ak yow. waaw baax na jërëjëf rek kontaan nañ bu baax a baax. macha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf xaaj Mayoro Fall maa ngi lay nuyu di la bëggee bëgg naa lool sa dugub bu am solo boobu ayca ni nga ko waxee fukki minutes yi bëgg a def ci jotaay bi woykat baa ngay woy ma woyee xarit ba ma ngay woo soppe yi ñu ngi fàttaliku bis neex ya nga xamante ne ca lañ nekkoon ak rafetaay ba ala laytaha tati fayej madulil قاصدك فانهلت دموعي كما الودق تذكرت أيام الإخاء وحسنها على ليتها تأتي فيجمدني موقوف تذكرت والذكرى تؤرق أهلها ويربطهم قيد التلهث والطوق صديقي على درب الإخاء وصاحبي نعم فوف نحن ولول ألو السلام عليكم waaleykum salaam wa rahmatulah waaleykum salaam bisimilah bisimilah. sëñ Mbacke ñu ngi lay ziar. jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar. yaa ngi ci jàmm. jàmm rek kay kan la. Mansour. Mansour. waaw ñu ngi lay baax. jàmm rek na nga def. ñu ngi sant baax kay. Mansour kuy rendi xar mi lan la war a wax. kuy rendi xar mi de bëgg nañu mu wax bismillah. allahu akbar. bismillah rabbana taqabbal minna su ko hmm. mënee. Hmm. su ko mënee tuuti bismillah baax na. macha allah. jërëjëf kooku baax na. ñu ngi lay ziar ziar mbokk yëpp nag. jërëjëf jërëjëf. di siyaara sunu benn baay boo xam ne ma nga fële ca makkatal mu karama day faral di déglu émission bi bu baax di ma faral di yónnee yóbbantey ñaan yéen yoon nuyoo ci yéen. jërëjëf jërëjëf. suñu baay Aliou Sall ñu ngi koy ñaan nag. jërëjëf. ñu Aliou Sall tey sàkku ñaan ñun itam ci moom ci bisu suba bi incha allah. incha allah jërëjëf. barab ba nga xam ne kon fa ñaanal yàlla njéggal yàlla jéggal la. yàlla ñu yàlla boole jéggal. mu ñaanal na foo ak suñuy waajuram boole mbili yëpp rek. jërëjëf jërëjëf. incha allah xam naa li wax ci xar mi rek mm-hmm. waaw bokk na ci ay yuñ ci war a moytu. mooy mhm. gémmiñ ko xasaw. Mhm, ah bokk na ci. Ah, waaw ci jëndim xar war naa bàyyi bu baax xel ci di jéem a foon gémmiñu xar mi ndax am na xet. Mhm. ndax bu gémmiñ nga xasawee booba bokkul ci yi nga xam ne taamu nañ ko moom ci yi ñuy tabaskee. jërëjëf am na solo lool. wala mu nekk xar moo xam dafa làpp ba daanaka amul yàpp wala boo ko tojoon yax yi sax boo ko rawoon ba ko yax yi doo ci gis yokku. loolu ko ci moytu. bu dee bu béjjén bi damm di naaj ci te wéragul itam. Mhm. booba nañ ko ca moytu. bu mu gumba bu mu pat. Mhm. bu mu muuma bu mu tëx. Mhm. te na mën a meem. waaw mooy ñàkk muuma gi. waaw mooy ñàkk muuma gi waaw. ndeysaan. bu defee yooyu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax incha allah. Eh, la di ñaan mu yàlla yomba ñu ko ñun ñëpp rek. te nangul ñu jërëjëf jërëjëf allahu taala. kontaan nañ lool. waaw daana jërëjëf siyaare nañ mbokk yëpp jërëjëf ñu nit kontaan nañ ñoo ngi lay siyaare ñu nit jërëjëf di bég lool ci sa dugg bu am solo boobu te di la ndokkeel ay ca jabanu almanaya aynama ya'tari shujaa adh-dhuhul rubbama tukhriju alhayatu fi man yaqulu rubbama man yaqulu 88 628 ñu ngi ci cat ixwata diini di leen jaajëfal bu baax a baax di bég ci ni ngeen di àndeek ñun jotaay bi ñoo ngi leen di béggee bu baax te di leen ñaanal borom bi may ñu ñu àgg ci feet gee jàmm te jeexal ko ci jàmm noonu la ñu berale cant ak ngërëm ak ñaan suñu directeur général alaaji Baye Omar Gueye ñaan borom bi yokk ko wér te defal ko taw féex may ko moom itam mu àgg ci feetu jàmm defal ko sutura ak teraanga yokk ay ndamam ci liggéey bi Baye maa ngi lay siyaar baax a baax waaye directeur directeur bu baax bi bari yërmande lool tey bàyyi xel njaboot gi ci jamono yi ñoo ngi lay bégee أن النهاية للصبور أدري بأنك واهل xam naa ne yaa ngi noonu toog waaye sa kanam a ngi leer naññ ba mel ne weer أن النهاية للصبور lu metti metti mu jëntal ga mooy muñ woy wa ma ngi koy woy xaritam ba ca kaso ba waaye di ko wax ne ko daal xam naa ne tumuranke woo foofu nga toog xam naa ne lu mu xat-xat yaa ngi jàpp ne yaatu na ndax xam nga ne lu mu yàgg-yàgg day jeex te muñay tax yi ndax dafa yàkkamti euh, maa ngi ko doon jël ci suuf ba muy maa ngi doon tàggatoo antal humaam fi bihaari dhulli haadir ayu huznin ummati bal ayu dam'in في المآقي أي أشجان تشاطر أي جرح في فؤاد المجد غائر أي موج في بحار الذل هادر أي حزن أمتي بل أي دمع في المآقي أي أشجان تشاطر أمتي أمتي السلام عليkum Al Mbacke waaw waaw man la woon mooy ki la waxoon ca météo waaw d'accord kon téyel noonu bul dem الميمون أضحاك المقابر كل جزء منك بحر من دماء وكل جزء منك مهدوم المنابر loolu xewoon na fi jël ma ci suuf <laughs> ak ci suuf dugg rek nañ suuf ak damay maye dédicace xanaa yooyu dañ koo defatul léegi de maa ngi waaye nee na egsi maa ngi koy jaajafal baax te di ko nuyu moom day ñëw rek mbali maa napp tollu fee ma wax jeexalal mbokk yi maa ngi leen di sant di leen gërëm yal nañu àggale yëf yi ci jàmm te suñ borom nangul ñu suñuy jaamu yàlla defal leen ko defal ñu ko sant nañ leen gërëm leen jaajafal leen bu baax jéggalu leen ñaan borom bi mu boole ñu jéggal yàlla nañ ki ci jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu